fii ci Touba Xayra ci ginnaaw marché bi benn mbir mu doy waar moo fi am benn doomu aadama buy wuyoo turu Boubacar dëkk réewum Côte d'Ivoire war am lu tolloog juróom benn fukki at moom kat lañu fekk mu faatu ci biir néegam ba néew bi commencé woon sax di soppeeku soxna maam jaara mi dëkkandoo nag moom fekke mbir mi ba alerte dëkkandoo yi moom kat moo ci indi ay leeral. man gëj naa kaa gis moom toll na ci ay juróomi fan moom lu ajuma daal gis ko mu toog foofu di fóot waaye depuis boobaak léegi moom gisaatuma ko ñaa dimb ak tey moom dipunta nooyu ci kër gi moom yaa may dégg man maa xëy di bale kër gi xeeñ na lool bale gaa ngi ci roq ba fee la jël sama balay mu xeeñ waaye dama na kañaa man loolu mën na ah kër gi ba demee kañaa fi dee te waaye nit ba heure añ a ma ba ñëw toog sama yaay ba ba ñu bëgg a nottaaku sax man ma ñëw sangu ji mais si gars yi romb ñi ñuy toog sax suba ne taa yaa ngi koy gis ba jël satala gi dem ca wana wa munoo romb foofu man ah man fii li muy xeeñ moom garaaw na de daal si laa génne daal di ñëw daal ne kii eh, ñoo gën a góor yi ba ci ma ne ko numéro Boubacar eh, ku ko ko ci am woo ko ba xam ndax man gëj naa kaa gis. fii ni muy xeeñ waaw sama xel dafa ñaaw sëñ Touba xam na yàlla taxaw waaw xet gi. ma dama ne fii boo yéegali ci plan bi rek munoo nooyee ñoom ñii ñëpp jóg ñu ànd na la ne lii kay du xetu kaña kee toog ne kee taxaw daal lii du xetu kaña lii Boubacar boo dee na faatu ma ne ko am ah, na gëj naa kaa xaaral ma Alane Ndiaye yor na numéro ndax Alane Ndiaye dafay fréquenté toog bi ñoom bi ma wootee ñoom ñu taxaw fi ci buntu euh, kii bi buntu néeg bi mu ñëw fii fii kay xeeñ na ci lañu wiiree ñoom ñëpp na lii lii boobu bu boobu la kee fiqi fiqatante bi xeer bi daay dajjee ko ak projet bi ñu gis ko ci gannaaw noonu mu sukk mel lu su jonkam teg bopp bi ma yëree sax maa daay daw ma xam nga ñemewu ma woo leen saapoor buñ sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne ni bàyyeekoon na ci soxna maam Jaara dëkkoon ak kii di Boubacar diirum ñetti at yi ñu fi nekk moom kat amut ma yàlla ak kenn te seen ab dëkk rafetoon na lool. dëkkandoo bu bu bu maandu la te yàlla rek tax na ba mu fi dëkkee léegi ëpp na ñetti waaye su la rombee dina nga Boubacar da ngaa def ma maa ngi fi su may fekkee may bala si mu ne ba nga balee balee balee balee set na loolu déglu olof bu baax musta wax man na baa jorante yeneen xibaar yoo xam ne nii ko na ci dëkkandoo yi nga xam ne nii jotuñoo àddu ci suñuy micro ne kat moom bi muy ñëw fii ci Touba yàgg na lool boobu sax bokkuloon ci diine islaam fii la daal di tuube wax nañu itam ne daf doon jàngale doon joxe ay cours particulier rawatina nag ci marché Ocass ay fréquentation itam daanaka kenn daawut ñëw di ko seeti daawul seeti kenn soxna maam Jaara mi nga xam ne sax moo dëkkandook moom jàpp na ne lii ndogalub suñu borom rek la bu ñëw. service d'hygiène bi nga xam ne ñoo ñëw pompe bërëb bi ngir xeex ak xet gi ak police bi doon def constat bi koorub bu ba yóbbu nañ ko ci morgue hôpital Matlaboul Fawzayni bu Touba ngir mën a xam faat gi lan moo ko sabab